tam euh, wax na ko maître Fall si kanam enquêteur yi ñu ne li ya ko wax wala waxoo ko waxaat ko ki nga xam ne modi ba ci ba da ko bañ a wax Arfan donc ba euh, refuse justement de parler aux enquêteurs euh, si walu wu mel alors motif bi nga xam ni itam daf ko daf ko invoqué moom nee euh, lepp da fay bok ci loi d'amnistie bi sans succès <laughs> Badiaraté a été retenu dans les locaux de la eh. police en attendant sûrement les instructions du procureur ñuy xar exactement procureur que la ci daal di war mëna euh, amani mais ki nga xamné que modi di Badiaraté jàpp ne ni loolu dafa daal di dugg exactement arfam euh, si n'a nga xam que modi la loi d'amnistie eh. raxas nak ba mu seet wecc donc li ñu don xaar mu indi ay dossier ci preuve Ousmane Sonko loolu la waxon tay aussi <laughs> waxana la même la loi d'Amnesty l'a couvert. En plus de la plainte qu'il a connue à prison et celle déposée par le maître Ousseynou Fall, qui n'a ramené que Maudia euh, Babakan Moup aussi, euh, pour une troisième affaire, euh, Mais enfin, euh, tout d'abord, il a refusé de parler aux enquêteurs. de cas d'humour mu de de du la loi d'amnistie bi na non de parce que beaucoup ont raté da koy gën en français lolu am matière judiciaire parfois sa avocat dalay lay ne garde le silence bul wax lolu lolu yoon la yoon moko ko may sañ-sañ bobu hmm. léeg sa avocat mo lay ne garde le silence les luñ la se poser posé bul wax ba ba man sa avocat ba ma ñew tant que nous ma bul wax lolu lolu on peut on peut meun nañu d'accord ak mon grawl parce que dañuy japp ni avocat am day japp ni meun na fa wax ba wax lu ëpp. lu voilà euh, liberté le plus absolu. voilà ba ba mu enfoncer ko. maintenant loi d'amnistie bi loi d'amnistie <laughs> xama ba Bah ndessane donc comme mom xamul mom xamul. voilà voilà les personnes la dangerosité de la chose yow a un activiste alors que tu connais pas les lois de ce pays. xamoo al amnistie lan la xamoo dara te tamit ñu lay yabal. jàngaluñu la lan mooy amnistie jàngaluñu la loi d'amnistie lan lay couvrir. Hmm. yow nga tawagu saaga nit ba mu neex la nga ne loolu ne d'amnistie bi daf ko d'amnistie bi daf ko couvrir ah donc man mën naa permettre tey yow ma tiim la yow fallu ma saaga la ba ma doyal nga yóbbu ma plainte ma ne la non non non non loolu mu loi Macky Macky bi parce que loi Macky Sall la loolu loi Macky Sall bi couvrir na ko fallu dans quel pays où nous sommes. <laughs> tant le pays donc bah, non loi loi des faits politiques des faits politiques mais digantes nit nga ko ba nga loi couvrir <laughs> non bah franchement comment tu peux insulter nga nga saga ay gor ñu la nga non loi Macky bi couvrir. non parce que yow tu es un tu es un ignorant ngeen baal ma ci kaddu gi. il ne connaît rien donc moom dañ koy yabal nii pour mu saaga saaga ba doyal ñu ne ko boo saagee xolal loi bi da ko da koy effacer yow mën ngaa saaga ku la ne wuy ma gars yi ne ko eh. te ñoom instant bii ngi seen jàmm. waaw wuy ma gars ko gars yi eh. ba ba jaatee eh, kaay gis nga fii loi bu ñu votee nii bu ñu jàllale nii assemblée nationale moo la may sañ-sañ nga saaga ku la ne. pare na nga si xolal saagal ku la ne autorité kilifa boo tim xolal bàccal rek yow dell saaga rek bu pare boo paree rek loi loi si bi da koy effacé hmm. loolu lañ ko gëmuloo parce que loolu la wax moom mu dem saaga ku ko neex mu jàpp ni gaayam yi niñ ko xelal ni loolu moo am gars yi nokk ko si kaso bi muy taxaw di naan non loolu loi si daf ko couvrir loi d'amnistie lan la couvrir. où il, il, a été, où il a été mentionné que la loi d'amnistie couvre des insulteurs publics. Ay insultes publiques. Loi d'amnistie doit couvrir. Nani bàyyi caaxan boo xamulee da ngay dem nga gëstu wala nga dem laaj ñu wax la Do tok saga ay gor ba nga doyal nga ne non loi d'amnistie moko couvrir il faut arrêter Li la wax ce pays là a des valeurs on a des personnes valeureuses donc doo toog di saaga ces personnes la ba pare nga ne loi Macky Sall moo ko couvrir ba pare nga yaakaar ni yow ëllëg kenn du la topp ci yoon du moo nekk nii. ah loolu la yaakaar mais loolu yaakaar parce que dañ ko gëmloo ni que horizon deux mille trente cinq Benno Bokk Yaakaar horizon deux mille trente cinq donc mën ngaa permettre nga saaga ku la ne tant que ñu ngi fii ba deux mille trente cinq kenn du la topp kenn du la tëj kenn du la def dara yow saagal ku la neex rek.

maître El Hadj Diouf moo daal di chargé exact euh, si boobu de dossier fu seenu ko mën a topp